ni daa bëgg a tracé réewum Gabon mu wax ni bi ñuy abolir esclavage booba daa tombé ak ab bato yab lu toll ci ñeent fukki esclave muy ay jaam ak juróom-ñaar biñ ñëwee ba toll ci côte gabonais ca Allemagne ñu décidé ci conférence de Berlin ni kenn amatul sañ-sañu jàpp jaam ñu ñëw accosté fii ci débarcadère bii jàkkaarloo ak présidence bi wàcce fa ñeent fukki esclaves yooyee ak juróom-ñaar daal di tudde barab bi Libreville loolu mooy askanum Libreville gi nga xam ne mooy réew mu Gabon waaye nag soo demee ca barab ba di nga fa fekk ñaari pilon yuñ fa samp muy ñaar yoo xam ni daa mel ni ay béjjën yu dend benn bi mooy symbole mooy symboliser ñeent fukki esclave yooyu ñu fa wàcce woon waaye la waral Libreville am nag muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ma fa wàccoon mooy beneen bant boobee keroog la Libreville di door a am loolee nag su yàlla dogalee ñuy dox ba jamono ji murid yépp fuñ nekk ñoom ñépp kenn ku ci ne ba nga ajoo ci sëñ Touba nga amoon pas-pas ak yéene topp jaar-jaari sañ Touba waaye suñ borom di ko door a dogal sun borom taw feexee la ju ci ci jamono ji ndigal lu fedd ku ci kii fi nekkal Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul muy mun Muntaxa mu yebal sëñ Koso mu ànd ak sëñ Xaadim ak mboolem ñu baax ñi fi ñëw tey ñun waa Gabon laa wax ni am nañ loo xam ni buñ ko xamee ndam rek la gis walaay asim ba ëllëg Cheikh Saliou dañuy woon ñu jóge fii Gabon yóbbu ko addiya siyaare ko sëñ bi nee na suul na fa loo xam ne bu saxee ñépp xamoon ni ñëwoon na fi yooyee nag maanaam sëñ koso mi suñ ginnaaw dajee jëf-jëf joo xam ni mënuñu mënuñu koo ñàkk wax ñépp dégg ko bi mu fi ñëwee ci édition bee weesu ba mu delloo Sénégal daa bind ñetti invitation jaarale ko ci meeru Dakar ñi ubbi jumaa yi Masaalikul Jinaan mu invité meeru Mayomba meeru Lambaréné ak meeru Libreville te ñoom ñett ñooñu mu doon invité jëf ju rafet ak maamam jaak sëñ Tuubaa la waaye kenn ka ba muy dem mi ngi tudd Pontalier moom moomee ba mu demee fekke ji ouverture Masaalikul Jinaan ba mu dellu si fii ñetti weer ku wax ak moom daan la je suis mouride jumaa yi Tuubaa ak Masaalikul Jinaan la boole monte ko ci ab photo def ko muy statue loolee nag kon suñ demee ba agsi fii tey sëñ bi dellu siwaat fi ay ndam ak ay yokkute gën fee feeñ kon ñun waa libre Libreville war nañoo jëlaat suñu laxasaay delloo ko suñu digg nii ndaw ñi def ñun ñii ñëpp nga xam ne boo doon wàññi ku ci ne am nga fanweeri at ak nàngam suñ xel dal na ndax gis nañ ni li ñuy def ñun mënoon nañoo bañ a jël kàddu gi sax di ko wax ñoo ñu ko digal rek ñoom ndaw ñi waaye ñoom matal nañ lépp ci ay wax matal nañ lépp ci jëf ñi ngi jox ñëpp rendez-vous bu subaa ñu daja ca saal bee mboolem ñu ne ci dëkk bi ñu invité ñu ñëw daje fa ak ñun waa lislaam bépp ñu gën faa feeñal ndami sëñ Touba ndami sëñ Touba yi nga xam ni 17h 16h la tàmbali nit ñi di dugg ba di h waaye ku yéex a ñëw te amoo foo